mbokk yi téléspectateurs yi am nañu mbégte lool dikkaat ak yéen ci ëtt wii nu xàll duppee ko show électoral tey nag dañoo fas yéene am gan goo xam ni dana war a waxtaanee moom ci lu tax mu wàcc ci làng gi samp ndëndëm ngir daggan baatu askan wa mu fekk baax fa mu yaroo fa mu màggee fa mu dëkk fa ko baax fekk muy Abdou Karim Fofana moom nag nekk na ndaw boo xam ne dañ ko taboon ministre ci gouvernement bu Macky Sall ci diir ba mu nekk ci boobu gouvernement ñu dénkoon ko ministère de l'hygiène publique du cadre de vie mu defar ca jëf ca lu tax waa Sénégal nangu ni jëf na ca la mu jëf méngoo na ak la doon xaar tax itam la mu jëf sedd xolu ko ko dénk ba kooku dénk ko leneen lu gën a diis loolu muy ministre bi ñu dénk wàllu PSE muy programme bi nga xam ne mooy programme plan Sénégal émergent mu ni loolu doyul lu ma liggéeyal Sénégal baax na waaye bay ci say wewu tànk faw ma soobu ci fexe liggéeyal gox ba nga xam ni falaa dëkk muy Fann Amitié Point E loolu moo tax mu samp ndëndam moom lañ na fas yéene kon dalal tey ji waxtaan ak moom Hadj AKF Abdou Karim Fofana mooy tey sunu gan jërëjëf Malal ñu ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi ak ñëpp ñi nga xam ni ñoom ñoo ànd ak le ministre Abdou Karim Fofana euh, pour ñëw ci émission bii di show électoral wax nga ko léegi ndaw la ndaw la ñu teel ko dénk ay responsabilité mais responsabilité yi nga xam ni teel nañ ko ko dénk nga wax ko léegi muy ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique tey ñu dénk ko ministre en charge euh, du suivi du plan Sénégal émergent moom moo nekk tey tête de liste Benno Bokk Yaakaar ci commune Fann euh, Point E Amitié ndomo tànk yi nga xam ni président de la République takkal na ko ko xam-xamam moo ko ko may waaye tamit engagement am ak loyauté am envers le président de la république moo tax ñu tappal ko ndomba tànk yooyu mu nekk un jeune courageux qui n'a pas peur de ses idées mais qui monte toujours au créneau pour défendre son mentor le président Macky Sall kooku la ñuy dalal tey muy Abdou Karim Fofana nañu ko dalal euh, ni ngeen dalalee seen leader am na solo Euh, Abdou Karim Fofana monsieur le ministre. waaw ñoo ngi laa ziar di la dalal di la wax bisimilah ci show électoral. maa ngi lay nuyu sëñ Malal di la sant yow ak euh, suñu mag Malick Thiandoum di nuyu waa groupe Futur Média yëpp di nuyu tamit samay mbokk samay xarit samay dëkkandoo fii ci Fann Point Amitié ñu bëri ñëw gunge si ñu tey ci émission bi ñii di suñuy kilifa ñii di suñuy yaay ñii di suñuy mag ñii di suñuy rak ñoom ñëpp ñu pare rek pour le 23. am na ñu naan midi waaye jàpp jàpp naa ne mën naa am ndékki sax bu leen fa fekk. ah waaw. monsieur ministre. eh eh yow monsieur le ministre. waaw salaamaaleykum. Ah. nga sànni benn xeer. lii du xeer lii pepp suuf la di xeer yaa ngi ñëw. xeer yaa ngi ñëw. ah lii ay pepp suuf la rek di. ah Malick <laughs> waaw. Eh. <laughs> Euh, euh, ku dégg ku dégg dégg ni mu introduire xam ni tey show bi dina show. dina show ah, ah. dina tàng dina tàng alors euh, loolu rek dafay wane ni moom ni ma ko présenté léegi rek mooy ne il a il a le courage de lu mu ragal a wax toog fay jooy mais ñun aussi duñ ko may dara dinañ ko dóor suñuy galgal ak suñuy affaire alors mu nekk rek vraiment tey mbégte pour ñu toog ak moom. parce que ndaw la c'est vrai mais kilifa yàlla moo koy tànn def ko doomu aadama donc lu muy nekk nekk ndaw ah, kilifa la tey nag mu bëgg a jiite commune Fann Point E Amitié fekk fi maire bu nga xam ne bi mu toogee fii bilan bi mu def hmm? ah jéem ko dama ne waaw eh, déglu leen déglu leen déglu leen de toute façon dama ne dama ne dama ne waaw ngeen ñu déglu de di ngeen ñu déglu de paala bi mu toogee fii livre am bu ndaw boobu mu yor daf la ndànk rek daf leen ndànk di ngeen ma déglu de paala bi mu fi toogee affaire bu tol nii la yor muy bilan bu rafet mu présenté ko fii ba wax ni midi affaire yi jeex léegi nag bu réew a dem na këng waxi mag dem na ndañ taali bàgg war na mbaam le 23 lépp dina leer. Euh, monsieur ministre. <laughs> waaw lan moo motiver sa candidature pour nekk maire ci sa commune bi nga xam ne moom mooy euh, Fann Point E Amitié. waaw d'abord sama candidature du lu bees ndaxte boo fàttalikoo 2014. Mhm. candidat laa woon boobu ñun ñëpp ay gone lañ woon defe naa sama at mi ngi tolloon ci 33 ans wala lu ko matul sax. Mhm. ñu organiser wu def suñu liste. booba bi ñu ko defee defe naa ne. ñoom ñi gagné tey boobu sax du woon ay candidature individuelle liste la woon. Mm-hmm. boobu ñi fi ne tey sax dañ làqatu woon ci ginnaaw rek ñemewuñu woon janoog nit ñi ne ñoom ñoo bëgg doon maire. Mm-hmm. Euh, ñoom ñu am à peu près trente et quelque Benno Bokk Yaakaar am vingt ñun ñu am quatorze. Mm-hmm. donc loolu euh, amoon na candidature. man dama jàpp ne politique nag pour defar ak liggéeyal sa askan la. waaye askanu Sénégal li muy yaatu yaatu. li wolof yi wax rek bu ñu nee diw ndax baax na wala mën na liggéey mbokk yeeg dëkkandoo yee ko war a wax mhm. donc yàlla dimbali ñu ñu am jaar-jaar boo xam ne fu ci ne am na lu ñu fa jàng ñu ne jot na nag ñun fii ñu dëkk ñu jéem euh, ci position yooyu ñu occupé ci expérience yooyu ñu ak ci lu ñu jàng ñu ànd ak suñu ay euh, dëkkandoo suñu ay xarit suñu am di jàmm defar suñu commune yóbbu ko foo xam ne moom la méngool mhm. mu teg fi mu nekk tey euh, seen commune bi di fan Point E Amitié mhm. fan la war a ne ak lan la méngool waaw xam nga tey euh, commune bi dama la koy njëkk a définiral bokk na ci commune yi gën a prestigieuse ci Sénégal dafa am ay atu yu bëri population bi bëriwul maanaam position bi gis nga ko ambassade yu bëri fii lañ nekk chef d'état yu bëri dëkk nañu fi mu janoog géej gi gis nga hôtel yi gën a mag ci ci ndakaaru bu ñu leen di tudd foofu lañ nekk mhm. nee naa la population bi bëriwul waaye tey boo doon natt budget bi egg na un milliard huit maanaam suñu maire bi bi muy jël budget bi mille 2014 400 millions la woon te sax ki fi ne woon nee na niveau d' exécution bi mosul dépassé 300 millions. Mm-hmm. mais moom moo ko yóbbu ba 1 milliard 8 fii la toog wax. waaw waaw moom li mu wax xam nga bëri na. chiffre ah. boobu rek laa gis mu mu nangoo wax. Mm-hmm. mais ku ne xam na ne acte 3 de la décentralisation dafa indi ay coppite. am mm-hmm. bëgg a dooleel communes yi. ñi nga xamante ne ay commune rural lañ woon mooy ñu daan wax communauté rurale ñu def leen ay commune de plein exercice mhm. ñun tamit commune yi nga xam ne ay commune d' arrondissement lañ woon amatul léegi ay commune de plein exercice mhm. looloo tax état jël euh, ñetti taxe bi ci jiitu mooy trimf euh, trimf xeetu charge la rek bu nekk ci bulletin de salaire comme yéen tey waa GFM am ngeen fii local am ngeen ñu fi liggéey mhm. ci salaire bi na am lu ñu ci déq loo xam ne commune bi lañ koy jox patente bi daan dem ci ville bi ñu jox ko commune yi ñu jël tamit li ñuy wax contribution économique locale ñu jox ko commune mhm. donc loolu yëpp boo ko dajalee muy doon lu yokku mhm. euh, donc yokkute budget boobu moom gëw mu ne loxoom dara la kon yokkute budget bi jógee cent millions dem ba un milliard 800 du waaw góoru maire bi fi ne du ay pexeem du ay sëñ bi du liggéeyu sëñ bi loolu kay xam nga li la koy wan rek mooy nee ngeen dafa ñëw indi fi ab bilan bu rëy bilan bi xam nga xale yi nu ñu koy woyee ci koñ bi mm. album photo xam naa. bilaa monsieur le maire. ngeen di mu may album photo malal waaw malal même buñ ko tuddee album photo. wane na lu mu def. mais dama ne. waaw dama yor na bilaa bi di gis nga di. ku nekk bu la neexee nga photo li nga liggéey wane ko. waaw waaw mais may ah, bàyyi la la preuve par l'image il a montré des images de ce qu'il a fait yow da nga koy dinget. Euh, Malick. waaw tubaab boo demee ci dictionnaire dafa am lu mu wax ci bilan. waaw bilan d'abord day comptable. sama mag Alioune Ndoye barki démb dafa woote grand théâtre woo ñu dëkk Dakar Plateau yëpp mu teg projeté projet par projet projet bu ne mu ne la lii lay jàpp fii laa jëlee xaalis nii laa ko defee bi mu paree document de trésorerie mi sax da ko teg ne compte bi lii moo ci des ñun suñu maire nag dafay ñëw ne ñu première page ma xool album photo bi dafa bëri photo nag ne ne pavé naa waaye bu la nee pavé naa waaw du la wax ñaata la pavé ban marché la jàllale ak lu ci conseil municipal bi wax. ay ay conseillers municipaux ñu ngi fi dinañ la ci wax. ñaareel ba mu pare ne la par exemple defar naa. l'école yi. école yi jënd na bi scolaire. waa déglu rek. dama lay jox benn exemple. mu ne la defar naa poste de santé bu Fann ok poste de santé bu Fann ok ña dëkk xam nañ ne peut-être bii mooy ñett yoon wala ñeenteel yoon ñu koy inauguré. te te ña fa dëkk mën nañ la wax inauguré ñett yoon benn poste la mu ah, loolu fii rek am di. ku la mën a jox bilan ku mën a jox album photo te joxu la bilan kay war na laa mën a wax leneen bu ñu nee ma egsi ci leneen ma egsi ci leneen waaw fii koñ bi ngeen nekk fii ci rue waaw am na koñ bu ñuy wax rue juróom ñi fa dëkk mën nañ la wax ne goudron nañ ko ñetti yoon ci at mi ñetti yoon ci at mi xam nga am na ñoo xam ne bu élection di jóg jege ko baaxul non xam nga am na ñoo xam ne bu élection di jege rek la ñuy liggéey yow bu ñu la falee juróom-ñaari at nattal la budget boo xam ne boo ko cumulé ëpp na 10 milliards mhm. nga toog di wax ak nit ñi naan laan pabe naa defar naa jardin xam nga matadi fa la yem mhm. commune bi nga xamante ne université Dakar fii la ne mhm. commune bi nga xam ne entreprise yu bëri fii la seen siège ne mhm. ñu nattal la un virgule huit milliards at mu jot pour vingt deux mille habitants dama lay jox benn exemple Yoff cent mille habitants lañ Yoff deux milliards la ñu am donc boo ko doon natt dafa mel ni Yoff ku ci ne rek nattal nañ la habitant bu nekk vingt mille francs par an ñun dafa mel ni nattal nañ ñu yoof boo demee da ngay gis pavage yi mhm. boo demee da ngay gis sécurité bi yow ci démb déglu naa eh, Abdou Karim li ngay wax ni est-ce que nekkul sa waa ji nekk tête de liste ca Ndakaaru moo tax ngay wax li ngay wax ni non dama lay jox exemple loolu danañ ci egsi waaw ñooñu yooyu miin nañ miin nañ samay xeer danaa ci egsi xam nga moom nañ nañ yemagum fii mi ngi ci demo mi ngi ci bilan bi oui ma xaaral bilan ban conseil municipal la mënul wax kii conseiller municipal la may leen ko mu wax. ma mënul wax du wax du wax déedéet bilan bi xaaral parce que bilan bi. defal nag defal nag defal nag defal nag defal nag. xaaral xaaral xaaral. mais ñun ci démocratie lañ ne. waaw baax na boo xoolee. waaw foog leen. waaw baax wax daf leen daal. defal leen waaw tey daf leen daal daf leen daal. daf leen daal. concept émission bi. waxal malal concept émission bi. mooy mooy moom mii candidat. moo war a wax moom moo war a wax. mais daf leen naan daf leen naan mais da ngeen tudd. dafa naan dafa naan dafa naan foofu. Euh, euh, Akash bul forcer bagage yi. bul forcer bagage yi parce que li mu wax bëri na. waaw li mu wax bëri na te yow ñaari page nga ci tànn defal naan. non càndum. ah càndum. non dama dama bëgg a ñëw dama bëgg a ñëw ci benn aspect malal malal. waaw dama bëgg ñu. waaw mais toogal rek. caa nga ko déglu. mais nañ ko déglu nañ ko déglu nañ ko déglu. li ñu bëgg a wax mooy waaw bilan bii ni ko ni ni ni ni ko Abdou Karim commencé rajaxe waaw moom bokk na ci conseil municipal yi fekkoon bi ñuy nasa ko noti waaw monsieur le maire li mu fi wax ci ay réalisation tënk ko ci këyit gi bari na bokk na ci defal ndànk rek bokk na ci waaw njàngale mi njàngale mi santé njàngale mi li mu ci def santé wér-gi-yaram li mu ci def man taxoon na sax ma bëgg ñëw cadre de vie tax na sax ma bëgg a ñëw dëkk point face waaw élèves yi waaw élèves yi ku ci am bac jox na la bourse loolu la wax léegi caa dafal daal Malick dafal daal Malick dafal daal oui ma non bu koy demoon daa après bu jëlee bàyyi waa ji wax def dafal daal beneen bi ci des waaw beneen bi ci des waaw bu leen neexee yuuxu de beneen bi ci des après nga won ñu ne li mu wax amul. beneen bi ci des. waaw wax na ne. bus scolaire. képp kuy jigéenu wérul. waaw boo xësee wan ñoo lay jël en charge ba nga wasi. ah doom ji. caa doom ji bu juddoo. waaw ba juróomi at mairie bi moo ko jël en charge. caa. wuy ma. Pala wax wala waxu ko. Pala moo wax léegi. waaw. moom conseil municipal la. kii conseil municipal la. na nga jéem ko démonté. ma xam yow noo tudd noo tudd. ma nekk conseil municipal. waaw man bokk moom nag moom liste bokk moom benn bokk yaakaar bokk ko fenn. waaw ma moom sunu mouvement loo ma tax ma nekk conseil. waaw conseil municipal bi deux deux la mës a réunir. ah mu am mu am liste. on vote un budget de un milliard huit avec quinze sur quarante six de prévus.

yow li maire wax fii ci bilan yow pourquoi nga bëgg wax ne amul te mu wane ko ci foto amul xam nga ñun ñun waa Fann waaw commune bu noble nañu ay pavage ak ay defar toilette. pavage du liggéey pavage pavage du liggéey loolu commune zéro sable. commune zéro sable amul fu barke dem rek la oto la oto mbëkk ku tolant fii na sable bi. donc commune Kër Saabu amul fii voilà boo boo boo boo ànd ak ay nit. waaw li mu wax ci élèves yi yow da nga koy dindi. ñi mu àndal bi mu eh li mu wax ci élèves yi du dëgg. mais laaj mais laajal élèves yi mais élèves yaa ngi fi. may na may na may na sama ñeex bourse. waaw ñu dàq ko man si sama bopp may na sama ñeex bourse ba léegi mënul jot diplôme am. ndax lan waaw baax lan waaw baax na. naa ni euh, lii fii Palla wax biir barki démb. conseiller bi ñëw démonté ko Abdou Karim léegi euh, du ñu fi toog yëpp cinquante minutes di wax paala deful paala deful paala deful mais mais mais malal waaw malal am na lu nga xam ne aussi Euh, dafay bëgg a nekk nihilisme wala wala sa démagogie parce que bu nit ki ñëwee présenté bilam nga ni dara baaxu ci mais au moins il faut reconnaître que il a fait des efforts bu dee doyul nga xam ne doyul bu dee yow da nga bëgg indilu ko ëpp nga wax ñu lan moo ko ëpp hmm. mais boo bëggee may paala zéro loolu tamit euh, lan lay nuroon léegi waxal defu fi zéro de euh, am na mu fi def càndum voilà malal malal waaw xam nga dafa am wax ju ma leen wax ci njëlbeen bi dama leen ne bilan dafa am lu ci tubaab bilan day comptable d'abord. waaw maanaam ay chiffres nga war a andi. jëmmale ko ay image mais boo andee ay ay ay image kese. ay photo rek mel ni sama mbokk soose bi nga xam ne rek dafa waroon andi yaasa mu andi ñànkatan kese. faa la album photo la def deful bilan. deful bilan léegi. ma ma yegsi ci dama la ne. Mhm. am na lu conseil municipal bi parce que am na loo xam ne su ma ko waxoon sax peut-être ñu foog ne politique la mais ki ko fekkee. te bokkul ak man camp politique. Mhm. ca bañ koy fal bu ko waxee nit ñi gën ko mën a gëm. ñun. Fann Point Amitié échelle d' bi ñu war a am dafa wuteeg yeneen communes yi li ñu war a am. Mmh. parce que wax naa la situation géographique. wax naa la ci budget ak potentiel bi fi wax naa la potentiel entreprise yi fi nekk. waaw ñun bu ñu teg suñu bët waru waruñoo wax pavage ak jardin parce que dañu judd fekk ko fi. Mmh. fii koo fi gis gis na pavage ba tàyyi mmh. gis na jardin ba tàyyi loolu dafa waroon nekk rek lu naturel loo xam ne day jàll ñun xam nga ñun lan la ñu wax. waaw ñun dañu ne euh, d' abord. ci suñu démarche bi ñuy teg suñu candidature dañ ne. Mhm. du ñu def dara te ñu déglu nit ñi. démb dégg naa ko fii mu ne wër na 300 maisons. waaw ab maire bu ñu bu ñu fal juróom-ñaari at nga ne 300 maisons nga wër. ñun diggante juin ak démb premier juin ak démb. Mhm. ñu ngi ci 735 xaw ma 736 maisons yoo xam ne visité nañ ko dugg nañ fa toog déglu nit ñi. Mhm. nit ñi li ñu njëkk a wax mooy gannaaw xëyu ndaw ñi nga xam ne Sénégal yëpp ku nekk nga ci tudd ndax suñu démographie ni mel. Mm-hmm. ñu ne ñu première préoccupation mooy sécurité. kaaraange dafa doon problème agression yi dafa bëri. Mm-hmm. defe naa ci at mii ñu génn dégg ngeen euh, chauffeur de taxi bi nga xam ne dañ ko boom ci biir otoom. waaw faat ko bàyyi ko ci. Mm-hmm. boo demee rue A diggante Amitié ak rue 10. dëkkandoo boo gis rek mën na la nettali fu mu fekkee ñu agressé nit wala fu ñu këfee téléphone jàmbur wala foo xam ne dañ fa këfee euh, saagu jàmbur. mais loolu yëpp boo ko dajalee ak yeneen problème yeneen problème la nga ne ñun échelle d'ambition bi ñu war a am mooy toppatoo ni ñi tabax rek du loolooy defar réew dañ naan waaw école yi war nañ ko defar naam mais école boo koy defar pour lan la résultat scolaire da war a wax ne ñun ñooy commune bi am résultat scolaire yi gën a rëy foofu ngay teg sa bët mais commune boo xam ne pafe nga léegi ñaata élève am BFEM ñaata élève am bac nga benn point boo xam ni dafa soxal waa commune bi yëpp mooy sécurité mhm. tey bu sa gaay fexe ci li kattanu suñu borom ba nga toog ci toogu bi takk ruban bi ñu ne la monsieur le maire da ngeen a far yéen da ngeen a far lan nga fas yéene def ci wàllu sécurité pour que ñii bu ñu tëddee nelaw ba yandoor malal sécurité du compétence transfert waaw mais mais parce que non du compétence transférée mais moom am na ci loo xam ne nas na ko nas na ko am ay pexe xalaat na ko. foofu wax na ko wax fu muy jaar ba sécuriser koñ bi. voilà mais bokkul ci compétence su mel. na wax na ci nam koy lijjante malal waaw. ñun dañoo wër 735 maisons ci commune mhm. déglu ay junniy junniy nit. bind programme bi ñuy bind programme bi ñu ne déedéet li ñu ci wax yëpp xajul ci programme. Mhm. ñu bind livre. Ah, jagleel ko commune bi. du ñu ne ci. la première préoccupation des populations c'est la sécurité. Mhm. sécurité dëgg la état la war police dañu am commissariat de police. mais état may na la ndaxte état moo créé agence de sécurité de proximité. proximité boobu collectivité territoriale yi la ci jublu. Mhm. mu créer programme bu ñuy wax quartier sûr. Mhm. di dimbali communes yi ne la commune boo bu ñëw ne la man damaa soxla dix vingt trente quarante cinquante na cotiser nangam ci budget état cotiser nangam ci budget ñu jël ay agents de sécurité jox leen. dama lay jox exemple tey. ku am un milliard huit de budget at mu jot. Mhm. war ngaa toog say doom di jooy ñu naan dañu këf sama saag ak dañu def nii ak dañu def nii. léegi loo loo nar a def yow. dama dama lay expliquer ci laa jëm. mag ñi mag ñi dañ la naan julli ji fajar léegi sama kër laa koy defee ndax mbedd mi wóoratul. Mhm. man de buñ ma falee ma waxtaan ak sama conseil municipal damay jël cent millions. Mhm. ci un milliard huit yi. recruter téeméeri agent de sécurité cent agent de sécurité. ma ne fan ok danaa leen jox dis agent de sécurité yuy wër guddi ak juróom yuy wër bëccëg. def noonu fan résidence. di def patrouille. ak yi oto. ak i oto. da nga jënd oto xanaa. dañuy jënd oto xam nga lu tax. waaw ils sont pas assermentés ku ñu fi gaañ yow yaa koy gaañ defal nànk defal nànk ñoom dañuy liggéey ak police. ah voilà ñoom ñoom seen rôle du dóoraate du saagaate prévention la ñuy def te dama lay wax dara loo xamante ne dafa am ci jamono ji. Ah, dafa am loo xam ne dafa am ci jamono ji. mooy tey on a une délinquance motorisée ñi lay agressé. waaw ay ay scooter la ñu yor waaw di këf. vol à l'arraché. vol à l'arraché yow nag li nga war a def mooy nga nga gànnaayu quartier bu nekk am oto. Mm-hmm. am nombre de d' agents de sécurité yoo xam dañuy def ay patrouille wax nga ne moom nee na sax du compétence mais attention bi mu demee ITV dañ ko laaj mu ne du sama compétence. Mm-hmm. yéen bi ngeen ko laajee sëkkatal ko lan la wax dafa ne bu ma faloo dinaa ci xalaat. waaw <laughs> loolu ba pare. ku ñëw ñu dañ xalaat ba pare gis ko feneen. am na commune yoo xam ne fi mu nekk nii. quartier bu nekk dafa am agent de sécurité zone ba zone A bii rek am na ay agent de sécurité yoo xam ne dañ nekk ci ko yi booy dugg ñu laaj la foo jëm mhm. yoof am na ci quartier yoo xamante ne dañu am seen brigade de sécurité mhm. mais yow nit ki da ngay toog ñu lay agressé wala ñuy rey say nit yow tu as en charge le bien-être et la quiétude de populations mhm. léegi léegi monsieur le monsieur le ministre waaw euh, dañ ma euh, mooy livre bi mu joxe joxe nii quoi en toute honnêteté waaw yaay dernier candidat sax bu ñu recevoir. Mhm. mais gisaguma ko bindu livre bi. ngi sekkital ministre boobu ba léegi mais wax dëgg yàlla saa boo ko gisee euh, li ñu ci mun a wax en toute honnêteté moo di ne jekki wuloo rek bañu ni candidat la nga soog a xalaat franchement. ça c' est un chef d' et c' est le fruit d'un travail de longue haleine. waaw léegi léegi euh, monsieur le ministre. lii nga nas ci sa téere bi mhm. ak ci sa programme waaw waa ji am na budget un milliard huit cent millions ngeen ni puusul paasul deful dindiwul yow boo faloo nga yore milliard huit cent mhm. ca ngay yem wala da ngay liggéey pour mu yokk ak mu yokkoo foo jëm parce que engagement la wax mon engagement pour Fane point e engagement bi wax d'abord xam nga wolof yi bu ñu wax ne dañu wax ne ku wax tënk sa bopp. waaw waaye ku bind def nga lu raw tënk sa bopp. Hmm. génn sa li ñuy wax ragaluñ ko. ça ça restera pour la postérité dama ne dama ne suñu commune potentiel bi dafa rëy. Hmm. entreprise yi ne fi. Hmm. bëri fi euh, niche yi bëri fi dañu dañu war a fexe suñu konom suñu suñu commune attractive. maanaam nit ñuy xemmeem ko bu ko defee di ñëw di fi liggéey si ndaxte looloo yokk suñu koom-koom. mais dama la wax sànq ci priorité yi dama la ne juróomi priorité. la ñu lal parce que loolu la ñu dégg bi ñu demee ci biir kër yi benn nga waxagul sécurité laa la wax dama ne sécurité mm-hmm. ñetti mesure la ñuy jël mm-hmm. dañuy liggéey ak police d'abord parce que ñoom ñoo moom sécurité mais ñi def li nga xam ne état may nañu ko ak agence sénégalaise de la de sécurité de proximité ànd ak ñoom liggéey quartier bu nekk nga am 15 agents de sécurité loolu sànni nous cent million mm-hmm. ñu jël juróom fukki million ci 1 milliard 8 xam nga ba léegi waxuma lu jafe. waaw ñu wut ay oto quartier bu ne. nga am sa oto boo xamante ne bu guddi jotee dañuy wër bu bëccëg jotee baal ma dañuy wër. Mhm. di surveiller ndaxte boo déggee lu la jaaxal nga mën ko. ci visite yi may def sax am na benn mag bu ma ne militaire la. Mhm. maa ngi koy nuyu mu ne ma yokk ci numéro vert. Mhm. ndax ku am jaaxle. di ko def loolu nag boo dul meer buy dugg ci biir kër yi bu fekkee bopp koñ bu ne nga taxaw. ne grand ça nanga na nga def soxna ça te doo dugg ci kër yi doo ko mën a. léegi wax nga sécurité deuxième point lan la. deuxième point dégg ngeen ko wàllu wér gu yaram la. santé nee na yokk na seen euh, Gaspard Camara ca kaw def ci ay salle de climatisation ak d'hospitalisation. xam nga xam nga xam nga santé. santé politique de santé ñun dañu war am politique de santé. ñun waxuñu salle de salle d'accouchement waxuñu poste de santé. Mm. tey boo demee Fann ok poste de santé bi inauguré nañ ko dëgg la mais xam nga lan la la population yi di wax. Mm. bu ubbee 10 heures 13 heures mu tëj. lu tax. waa waa Fann ok ngi ni poste de santé boo xam ne poste de santé boo xam ne. poste de santé boo xam ne. du liggéey. man yenn saa yi ñu yónnee ma message ne ñu amuñu détergent amuñu nangam moo tax may la bilan bi dañ lay fotool bu ñu la nee pat dama lay jox benn exemple. bu ñu la nee euh, def naa aide Covid 240 millions. waaw duñ la woon ñan ñoo ko jot. kenn du la wax kan moo ko jot. Mhm. maanaam bilan chiffre la fi mu jógee fi mu dem après nag bu la neexee nga yokk ay. ay ay ay image ay image waaw xam nga boo toggee ceebu jën bu la neexee nga def jaga bu la neexee nga bañ a. léegi bu amul jën mënul doon ceebu jën. loo loo namm. ci wàllu santé li ma njëkk a bëgg. mooy dimbali ci population. commune bi togg. kat man waaw te dama fonk rek liy jóge ci togg waaye. Ah, du dëgg alors waaw. Euh, santé li ci jiitu. nee naa la politique de santé ñett la. Mhm. am ressources humaines. Mhm. am équipement mais am pouvoir d'achat médical. Mhm. suñu mel nag ci yooyu lay juum moom pour moom bu tabaxee bu peinturé rek gongo déedéet nit ñi dañ bëgg. nit ñi dañ bëgg bu ñu jógee dem di faju ji ñu am njëg. Mhm. état du Sénégal dafa teg CMU teg plan Sésame. Mhm. mais ñun commune bi boo dégloo nit ñi. ñu naan la man dama bëgg a faju dama am lii dama am lële xam nga bu la yàlla tegee position ministre di nga dégg lu ne di nga gis lu ne. Mhm. mais nit ñi dañ leen di libéré doo leen téye ñuy ñëw di rang sa bureau yooyu. état bi nee na ku am carte d' assurance maladie boo xam ne cinq 3500 nga koy jëndee. boo demee ci hôpital wala Gaspard Camara wala poste de santé consultation boo waroon fay 2000. 400 ngay ba fay. bu fekkee guddi la exploité guñu quoi. mais moom laa la parce dama dem ba bureau CMU. Mhm. ñoom ñuy jooy. mais moom laa la wax. ñu ne ñoom li leen jaaxal. mooy ñëw yi dañ ko fi teg pour askan bi mais gisuñu presque pratiquement. mais xam nga xam nga commune xam nga commune mhm. commune démembrement état la. Ah. bu état ne dama bëgg nit ñi am assurance maladie commune da ci war a jël wàll. très bien mais ñoom xam nga li ñu jàpp mooy boo amee mairie pour xeex état la. ñoom ay deux mille vingt quatre ak deux mille vingt cinq ak deux mille vingt neuf la ñuy xaar mais liggéeyu luñ population yi. man li ma bëgg mooy jël dix mille cartes CMU jox ko population vingt deux mille vingt trois mille lañ eggaguñ vingt cinq mille. Mhm. su ma joxee dix mille à peu près. on est quarante mille. quarante pour cent de la population ku ci ne nga jox ko carte boo xam ne buy faju ji yaa koy jënd jox ko ñoo ñoo koy jënd joxe ko ndax nit ñi xam ko waaw bu ko mairie bi jëndee ko waaw te ñun def nañ ko ba tàyyi bataay yi def nañ ko di jënd ay carte ci li ñu mën di ko jox nit ñi parce que nit ñi bu fekkee dañ lay seet si ne man kat damaa am feebar sàngam damaa am feebar sàngam nga ne laaj médecin ñu ne la non kii boo ko joxee lay cotisation bu demee di faju 20 pour cent lay fay bu jënd garabam tamit bu fekkee générique la 20 pour cent ñu ne nañ jël 10 000 personnes ci commune bi ñu jox mhm. deuxième chose mhm. ñu ne dafa am xeetu Euh, ay nit nit ñi bu ñu weesoo 60 ans état bi am na plan Sésame. mag ñi mag ñi plan Sésame. waaw man damay dugg ci kër yi ñu naan ma waaw man euh, centre de gériatrie bu Wakaam laa dem damay def nii damay def naa dégg na ñuy wax ne dañuy def centre de gériatrie moom it mu ne day def maison maison des personnes âgées xam moom amagul programme. Mm-hmm. album photo la andee gum ne bilan la. waxagul programme. mais li ma la bëgg a wax mooy personnes âgées yi tamit am nañ seen wàll. Mm-hmm. utal leen ñoom ñëpp parce que devoiru commune. Mm-hmm. balaa muy doon dépenser xaalis mooy informer. seeti nit ñi ne leen ana mag yi ci commune bi ñu ne la maa ngi nii nga ne leen xam ngeen ne am ngeen droit plan Sésame yow nga faciliter leen ko. am na ñoo xam ne mënuñu déplacer ngi dox. mais plan Sésame barki démb rek na ku nekk fii ci salle bi ku ma nettali ne waajuram dem na def ci euh, ay ay soins. am na ay soins donc. mën nañ ne c'est imparfait. waaw politique boo gis. dañ koy dañ koy améliorer mais xamal ne Sénégal képp koo xamante ne yaa ngi cotiser 3500 ci CMU mën nga faju di fay 20 pour cent état di fay 80 pour cent. am na loo wax. waaw maire bi dafa ne zéro ba cinq ans. jigéen bu ah, jigéen mooy jigéen jigéen ñi war na lor yi ak seen ak seen i doom waaw bëreet nga war na lor mu jël la en charge léegi loolu tamit boo wasinee mu jël en charge sa doom ba nga am juróomi at ah, waaw xaaral ma expliqué la loolu mën ngaa déglu ko waaw wala léegi jigéen ñi est-ce que loolu am na pousse ngeen seen maire bi léegi deuxième chose deuxième chose pousse ngeen seen maire bi xoolal da ngeen di def deuxième chose ngeen baal ma. waaw da ngeen di dem ci Google ngeen tapé euh, nu mu tudd gratuité des soins Sénégal. Mhm. boo ko tappee di nga gis ñu ne la en 2013. Mhm. état du Sénégal moo teg programme bu ñuy wax CMU bii ma la wax. Mhm. ne jigéen juy wasin césarienne dañ la koy. defal gratuitement xale bu ne 0 à cinq ans yow. kon xanaa moom ñaara mën a am soit daf ñuy nax comme album photo bi. wala boo dafay def double emploi ci ay dépense loo xam ne état teg na ko ba pare. yow nga tuuma da nga tuuma détournement. dëgg laa wax waxuma détournement dama ne. ah boo nee double emploi kay dugal nga détournement. dama ne xam nga détour euh, double emploi moom. waaw mooy ñàkk xam li ngay def. waaw ñàkk xam li ngay def. xam nga maire bi benn bés dañoo daje comme gone mi dañ ñeme di saaga ci ay réseaux sociaux yooyu benn bës ma dajeek moom ci benn dëj fànnoog mu ñëw ne ko ah monsieur le maire yow ñu ngi politique boobu ba léegi rafet na da ngay bàyyi coow li wax xale yi ñu bàyyi di saaga mu ne ah xew ma ne ko bàyyil de man ministre de sama ordinateur tour bu ma tàppee rek xam naa kuy tabax ci ndakaaru xam naa foo am titre foncier ma ne ko te nag attention la xew Kër Massar ak oto yañ fa bâche xam nga dégg naa ko ba naan amul oto ah, ah, ah, ma ne ko ak oto yañ fa bâche xam naa ko de bi ma ko waxee xam lu ma tontu dafa jàpp sama veste rek na ma déet bu ko def boo ko defee jël ndaare loolu boo leen ko invité waat ngeen laaj ko yow da bëgg wax ni moom le maire moom am na ay pàkk Kër Massar. dama am na fa ay ndaamaar bokkut ak ndaamaar gi mu wax ne moom la dawal fii. dama ne ndaamaar gi muy dawal fii. mooy ba maire ba yoroon. ba maire ba yoroon mu peinture ko mu peinture ko. dama ne amul oto dama ne jëndul oto. dama ne bëgg ko jëndaloo oto. dama ne Karim yaa ngi tuumaal dama ne dama ne dama ne. waaw yaa ngi tuumaal waa ji de. li ma wax lu leer la ñu yeggali suñu émission dama ne. waaw ci wàllu santé bu fekkee état jël na en jigéen ñi. waaw xale yi zéro ba cinq ans fayuñu yow ngay jël dik na da nga koy fayaat wala yaa koy jël en charge ñaar moo mën am hmm. da ñuy nax danga ñoo defal album photo wala nga def double emploi wala nga def double emploi ci ay dépenses troisième point ci sa programme boo faloo mooy éducation hmm. Hmm. xale yi wax nañ fi léegi ne non foofu nag Abdou Karim amoo dara loo fa def paala def na yëpp joxe na bourse yi defar na l'école yi xam nga bay ay bi kese waaw déglu ma ma wax la waaw ñun dañu war a am politique de l'éducation ñun suñu suñu li ñuy xalaat du peinture ay école defar salle de classe pavé déedéet ñun li ñuy xalaat mooy fexe suñu commune doon référence chaque année bu ñu nee fan la ñi ëpp am. ci euh, en sixième ñu ne fan point ak bu ñu nee ak BAC te xam nga loolu noo koy amee. Mm. d'abord da ngay jàppale xale yu ndaw yi man damay dugg ci kër yu bari waajur yi di ma wax ne ñun de suñu doom yi bu ñu sañoon am ku ñu jàppale ci ñu leen di encadrer. Ah. parce que xale boo buggee mu am diplôme yu baax boo buggee njàngam baax. Mhm. encadrement à l'école encadrement à la maison. à la maison waaye xam nga boo melee ni malal wala man doo ne ci kër gi mukk. Ah, wallaay amuñu jot amuñu jot ngay joxe rek dem sa yoon. yow yenn saa doo am jot wala yenn saa mënoo ko. ñun ñu ne dañuy teg benn programme de bourse at mu jot ñu xool li ñu mën man waxuma ne dinañ jox ñëpp bourse de loolu mm. mënuma ko. waaw ndaxte loolu mooy andi nga dem ba école yi di leen amel xaalis. te doo mm. fay ñaareel ba xale yi tamit nee nañ bu ñu la mayee bourse rek ci benn école rek nga mën a dem da ngay gis ku bëgg jàng affaire infirmière ñu ne la déedéet école sàngam rek nga gis ku bëgg a jàng vétérinaire ñu ne la école sàngam rek kon da ngay répartir budget bourse yi bourse yi day déjà chèque nga koy def képp koo xam ne dafa bëgg a jàng nga bàyyi ko ak la muy jàngi mais deuxième chose képp koo xam ne may nañ la bourse dañ lay teg li ñuy wax contrepartie citoyenne ndaxte niñ la jàppalee ba nga mën di jàngi noonu nga war a amee devoiru jàppale sa commune commune mooy xale yi. Mhm. ku ci ne koñ ba nga ne nga jël juróomi xale di leen encadrer seen kër. mais li ma jaaxal deux fois par semaine nga dugg ci kër yi kon ñun. waaw dañuy jàppale ki am ba. Mhm. mais tamit dañuy encadrer ki nga xamante ne dafa nekk primaire wala dafa nekk collège. Mhm. am ku koy jàngal ay leçon ñun bourse bu ñu la ko joxee da ngay am contrepartie citoyenne. da nga ñu jàngal ñu gën a tuuti. da ngay a tuuti xam nga ndax la mooy suñu objectif. suñu objectif du pavé nañ ay école de wala peinture nañ ay salle classe. suñu objectif mooy ñu ne résultat scolaire yi gën ci entrée en ci BFM ak ci BAC fan point amitié la jóge léegi loolu foog loolu mooy ambition foog ngeen am aussi ay bibliothèque municipale foog ngeen am ay fourniture yu yu jag foog ngeen jox xale yi ay jumtuwaay côté boobu ak informatisation école xam nga mooy li ma la wax loolu yëpp hmm. mooy moyens yi résultat bi la ñuy wax moyens yi moom waxuñu ko parce que ni nga ko waxee sànq école yi bu ñu dëkkee di ko pentu te xale yi seen résultat baaxul ba njëriñ la am hmm. bu ñu xëyee pavé fépp pavé baax naa ah. mais dama ne boo pavee te say te say élèves waruñu am examen. Mhm. wala ngay jox ay bourse ñoo xamante ne boo leen joxee bourse xamoo fan lañ jëm. Mhm. ñun dañ bëgg a nekk la commune de référence en matière d' éducation. léegi nag ci wàllu éducation dama ciy taxaw tuuti. yemuñu rek ci ñi am bac. Mhm. parce que Sénégal boo doon xool ñi jóge dugg entrée en sixième ba ñi am bac maanaam taux de déperdition bi dafa bëri. dafa bëri te commune bi bu ñu jàpp ne commune bu def exception ci loolu la déscolarisation bi dafa bëri. defe naa ne man rek nga gis ci sama programme ñu ne. dañuy créer un programme de formation courte pour les déscolariser. ndaxte ci biir commune bi dañ fi am ay mag yu baax yu am expérience yoo am jaar-jaar. suñu benn mag bu tudd Thierno Ly dëkk rue A ci rue 10. daf ñu wax ne yéen xanaa xamoo leen ne am na métier yoo xam ne en 40 heures mën nañ def formation théorique ba nit ki mën a am métier li ci des mooy yow mii di maire. Mhm. bés bu ñu la falee chantier yi ni mu fi bëree nga jël. Euh, sey autorisation de construire koo ko jox ne ko sas naa la nga jël juróomi xale yi. kii jàng carrelage kii jàng électricien bâtiment. kii jàng mu ne xam nga lu mu laaj. nga créer insertion. nga créer insertion. Ah. parce que parce que Sénégal bu ñu ko bëggee defar. ça c'est intelligent. Sénégal bu ñu ko bëggee defar mooy li ma la wax. Ah, ah. doo jox doo jox bourse ñu am bac bàyyi ki nekk collège bàyyi ki nekk primaire. waaw doo ñi ñi nga xam ne seen seen njàng egg na tamit. doo leen defal ba pare bàyyi ñi nga xam ne seen njàng eggul balaa ñun dañu war a doon koo xam ne ku ci ne dañ lay téye gunge la ba nga egg fa balaa ñu ñëw ci quatrième point ñi ngi ci ñi ngi ci troisième dem quatrième point seen commune bii ndax am na marché waaw am na fu ñuy wax marché tubaab marché tubaab waaw xam nga fii moom mooy fan point amitié xanaa foofu xanaa ki ngeen fay jaay ay petit concombre une petite salade <laughs> yaa yaa ko ñemee wax waaw waaye daal li ma la bëgg a wax mooy uh-huh. amuñu marché te xam naa ne population yi tamit sawaruñ ci ndaxte bëri na foo xam ne jéem nañ fa teg marché mais gis nga ni mu mujjee. kon yéen ay marché yàpp sa jëkkër ngeen am. moom daal moom daal damay bañ jigéen ñi bu ma génnee fii ñu poñe ma. na ma yooy yaay complice su malal mais malal li ma la bëgg a wax mooy. waaw. Euh, bu ñu jógee ci éducation. ñu ñëw ci cadre de vie. waaw foofu nag xam naa ni moom di nga fa mën a wax dara. ndax bi nga bi nga yoree urbanisme logement ak hygiène publique. daf nga loolu neex Dakar wax dëgg yàlla. Dakar na loolu moom dañ koy wax chapeau ndax xam naa ne xam nga xam nga li nga ciy def. cadre defe naa du débat. waaw benn benn ñaari exemple rek laa lay jox ndaxte cadre de vie am na ñoo xam ne dañ jàpp ne boo pabee rek defal nga cadre de vie. allées yi gën a rafet ci dakaar fii la nekk ñu koy wax allée Seydou Nourou Tall. Mm-hmm. allée Seydou Nourou Tall tey boo fa demee xam nga lan nga fay fekk. parking gravats de chantier nit ñi fa la ñuy ferrailler mécanicien ak brique allez Seydou Nourou Tall. Mm-hmm. même boo ko pavee sax mënoo ko defar ba nit ñi di ci doxantu barki démb am na kilifa gu baax gu dëkk point e, mm-hmm. boo xamante ne dama ko seeti woon. Mm-hmm. mu ne ma sama doom boo faloo defaral ñu mbedd yi ñu am fu ñu doxantoo. mu ne est xam nga ne bés mu ne sama chauffeur daf may yóbbu ba avenue Albert saro ma wàcc ma mën doxantu te mu ne ñun fii dañ fi daan doxantu dañ daan ànd ak sa ñoom bàyyi di doxantu mhm. fii ñi fi bëri dañuy sport amuñu fu ñu ko defee am na ñoo am seen kaw terrasse te bu ñu amenage woon allée yi mais mair day am autorité mhm. maire day am standing maire day am standard xam nga lu tax ma la loolu parce que allée Seydou Nourou Tall yi ña fa dëkk boo leen dajale woon nga toog waxtaan ak ñoom ne leen ah entreprise yi fi ne bëri na nañu waxtaan dama bëgg ñu def ay ratio par exemple ñu ne 30 pour cent yi nañ ko def parking. waaw yeneen 70 pour cent yi nañ ko aménager fii nit ñi di fi mën dox fii xale yi di fi foo fii ñu mhm. aménager def ko ay fleurs. mais ñun loolu amuñu ko. boo demee boo génnoon léegi soriwul. Mhm. boo demee maa la ko wax zone de ferraillage nga fay fekk. Mhm. kuy defar sa immeuble fa ngay. ferrailler chantier yi fa la ñuy defar seen ferraille. ku am gravat de chantier fa nga koy sotti ñaareel ba. am na lu jaaxal nit ñi ci commune bi. waaw mooy facilité bi ñuy joxee autorisation de construire. dafa dem ba andi benn problème. mooy problème bi nga xamante ne mooy. plan de circulation. loolu dama bëgg ñu waxtaanee ko. parce que gis naa nga bind fii adapté au nouveau plan de circulation pour la commune. mais tey buntu yenn saa yi bu boulevard Dial Diop xatee Ndiaga Ndiaye dañuy dugg rue bii ngeen nekk. ba xaw fi fiir ay xale. yéen ku ci ne tey dañuy waxtaan ku di cotiser di defar ay doo daal. de circulation proposé plan de circulation bi d' dañ ciy waxtaan ak direction des transports routiers. parce que ñun ñoo yor autorité bi en la matière mais service technique yi amuñu ko donc dañuy waxtaan ak ñoom. ñu définir ko yóbbu ko ci sous-préfet ñu définir mais li may mën a jàpp mooy. ki nga xam ne dafa dëkk Point ki nga xam ne dafa dëkk Amitié de am ay école yu fa ne bu midi jotee. xale yi di buruxlu nga xam ne tey da nga war a def cinquante mètres di ko def trente minutes. ñun li ñu bëgg mooy njëkk a def benn affaire boo xamante ne moom la ñu wax ci fu circulation xat mooy def ay voies à sens unique. suñu commune egg na foofu mais boo amee mbedd mu xat nga bëgg a bàyyi kii gaare droit kii gaare gauche ñaari oto di dem di ñëw. loolu duñ ko xalaat ñaareel ba. Mhm. ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy promoteur immobilier yi xam nañ ne bëgg nañ suñu commune trop mais ñu respecté dëkkuwaay yi ku am sa gravat de chantier nga dindi ko suñu commune tey booy dox da moytu gravat de chantier yi. yow boo nekkee maire loolu dafay dëñ. mais dafay dëñ deuxième chose ku tabax sa immeuble nga respecté code de l'urbanisme fexe au moins le ratio un appartement une place de parking nga respecté ko mais mënoo tabax immeuble. yow defar vingt appartement defar dix places de parking bu ko defee yow ñi dëkk ñi jënd appartement ci sa immeuble wala ñi fa am appartement ñëw di xëccoog borom kër yi seen buntu kër seen ay stationnement ñaareel ba tamit ab maire da ngay am initiative mhm. piscine olympique da ngay dem waxtaan ak ñoom ne leen man kat guddi wala bëccëg ubbi leen fii ñu andi fi oto yi ñu fiy def parking bu ko defee ñu leen di fay ngeen am ci recette mais ñun ñu régler ci suñu ay problème ak mhm. yeneen ak yeneen ak yeneen aussi si si commune bi te waxuloo Euh, les canaux à ciel ouvert. waaw canaux à ciel ouvert yi foofu tamit war nga ci wut. canaux canaux à ciel ouvert yi tamit il faut ñu wax dëgg dafa am ñaar. waaw hmm. balaa ñuy wax canaux à ciel ouvert ñu bëri dañ ma signalé bi ma defee sama cent 735 visites yi ne ma. Mhm. lu mosul am ci commune bi am na fi année bii mooy inondation hmm. ah da ngeen mbënd. xam nga lu tax inondation am fi. waaw c'est parce que ay travaux pré-hivernal kenn defatu ko. ah mooy curage des caniveaux mooy curage hmm. léegi maire yi koo ci laaj. surtout suñu maire dala naan du sama compétence compétence état la déedéet les canaux à ciel ouvert d'accord compétence su état la mhm. mais les canaux yi nga xamante ne dañu ils sont couverts mhm. sa compétence la mhm. ñun bi ñu nekkee gonee at mu jot balaa nawet di jot da ngay ñëw gis ñu débouché defar mais canaux yi travaux defar tali yi xaw ma lu ci ne travaux defar tali yi moom xam naa ne am na lu ci war a ne defar tali yi yéen la de seen nguur déedéet déedéet déedéet déedéet yi état bi la ci biir bi waaw laajtal ah te du mu ñëwee nee la moo defar tali. waaw xanaa album photo bi photo yaa ngi nii. <laughs> photo yaa ngi nii. kon moom moo photo tali. dama ne déedéet lii réalisation la waay dama ne dama ne album photo dama ne jàmbur bi tamit. dama ne album photo bi. waaw li ñu si gis mooy. boo demee boo demee constaté dañu dañu defar ay dañu dañu defar ñuula laat ay tali. waaw laat ko ba fermer sax ay caniveau. Ah. yenn saa yi tamit fii am na ñoo xam ne seen koñ dal na leen fi mën nañ ko wax. Mhm. leneen tamit ñu bàyyi ko xel. chantier yi bu ñu leen dul surveiller parce que cadre de vie ci la bokk da am ku lay baleel. Mhm. da am ku jël mbalit. Mhm. mais da nga am kuy surveiller chantier yi. Mhm. di délivrer ay PV. mais yow bu fekkee surveiller au chantier yi am na chantier boo xam ne zone B dañoo ñëw ba couvrir caniveau maanaam baraquement de chantier bi ni ñu koy waxatee. clôture de chantier bi dafa clôturer ba clôturer li nga xam ne moom mooy. Euh, moom mooy caniveau yi. donc loolu ñu bàyyi ci xel donc wax nga. canaux à ciel ouvert am na am na boo buggee dégg-dégg commune mënu ko defal parce que moyens yi mu laaj dafa bëri mais commune war na jël initiative nga bokk opposition nga bokk pouvoir boo bëggee liggéeyal sa commune dangay ngay ànd ak ki nga xamante ne mooy sa maire bi nekk fële euh, interface collaborative intercommunalité nga dem seeti état ne lii kat war nañ ci taxaw lii nangam léegi mhm. am na canal boo xam ne nag ñun rek ñoo ko bokk parce que Aly Seydou Nourou Tall canal la bu ñu tëj mhm. boo jógee rond point maam Abdoul Aziz Sy Dabakh jëm Fass dafa ubbeeku maire bi tamit dégg naa nee na moo koy defar alors que benn entreprise moo ñaan moo ñaan ne nañ ko def nañ ko may mu tëj benn partie bi ngir mën ko def parking mais ñun bi budget yi ma dégg ne moo koy defar xam nga nit wax naa ko ci benn journal waroo nekk dans le misérabilisme municipal mhm. maanaam li nga am da koy demee marché bu doyul nga dooru uti mhm. mais nañu diw defal nañu diw defal te yow yaa ngi toog ak un milliard huit am na entreprise yoo xam ne defal nañu defal RSE dangay def ba noppi ñu naw la ñu fekk si la. Mhm. mais entreprise yi seen liggéey du xëy du financer ay mairie. léegi donc li ma la bëgg a wax mooy canal bi nga xam ne moo nekk continuité Aly Seydou Tall loolu commune bi war na ko mën a tëj créer fa ay activité pour population yi loolu. léegi bokk na ci suñu léegi monsieur le ministre. Euh, wax nga yi bëgg a def yëpp wax nga santé wax nga éducation wax nga cadre de vie wax nga plan de circulation bu bees mais est-ce que yow ak sa ay nit biir na leen ni mën ngeen roof galgal paala paala sàmb foo ko loxo bi ci loxo. waaw ngeen baal ma. ngeen baal ma loolu dinañ ci egsi. mais programme bi dafa jeexul danga may may rek. des des programme bi na des na ñaari point ñaari point waaw non dama la ne loolu. loolu jarul loolu jarul loolu jarul galgal paala fukki minute moo des. paala paala midi. paala paala. paala midi. paala la la Paala. Paala midi midi yëf yi jeex li ma la wax waaw carte gi jeex. <laughs> non Baye. waaw ma dégloo. waaw Baye Fall bi nee na midi gi dal la yow. boo leen ma dégloo. waaw man soxlawu ma cours soxlawu ma dara. Ah. dama la ne ndekki. waaw ndekki du ko fa fekk. ah bon ndekki nga jeexal. ndekki du ko fa fekk. alors léegi. <laughs> léegi ah, ah. mairie de ville bi. mairie de waaw gis vraiment ci liste yi euh, monsieur le ministre dañu gis benn Bokk Yaakaar euh, la conver la conférence des leaders am ñu mu jël samp leen ñëpp war a topp seen ginnaaw mais ñu gis la majeure partie am ay listes parallèles maa ngi dégg sax si ñenn ci opposition bi ñu ni loolu diversion la pour récupérer ñi nga xam ne bëgguñu voter pour euh, waa kër Macky Sall ak lu ni mel. ñu gis pëccëxoo bi mu mel ni bokk leen benn kilifa bokk leen benn parti bokk leen benn couleur loolu ban jàngat nga si am ak mairie de dakaar bi nan nga ko gisee. waaw man loolu lu may ñaawlu la parce que wax dëgg yàlla ñun Benno Bokk Yaakaar lañ euh, président benn liste muy Benno Bokk Yaakaar wax na ko waxaat ko. léegi de tasaaroo moo léegi nag li am. Mhm. mooy euh, suñu parti yi nag démocratie dafa am. nit ñi am na nu ñuy doxee noo xam ne yenn saa yi tamit. amu leen discipline de parti. non cest à Euh, élection locale yëfu quartier la. waaw yëfu commune la. Mhm. di nga gis diw. wan naa la léegi waa taxawu Dakar yoo xam ne ñun la ñu àndal. waaw parce que programme bi ak suñu doxalin peut-être moo leen doy. Mhm. du dëgg. waaw donc loolu c'est des particularismes. mais Benno Bokk Yaakaar benn l'islam. te xam ngeen yow yow sa commune da nga am ñoo lëkkaloo ñu bokk taxawu Dakar. Eh, waa Kër Khalifa. ñu ngi nii ñu ngi nii toog ñu ngi nii to ñu ngi nii toog ñu ngi nii. yow Abdou Karim da ngaa dem jëli ay ñitte Khalifa. déedéet defal nànk dafa da ngay ñu nekkuñu ci débauchage <laughs> ñun nekkuñu ci mercato. Ah, nekkuñu ci mercato ay transfert nga dafa am dafa am ñoo xam ne. waaw dañoo bokk gis-gis bokk ay valeur ci ñoom dañu faloon seen maire. waaw maire bi def ñetti weer woon leen jikko yu bees. andil leen huissier di leen génnee ci ay bureau yu demee noonu te ñooñu ñoo ko fal. Ah parce que nag pour la petite histoire 2014 liste bi gagné du ki ko jiite. du kii ko jiite. li si taxaw Dakar moo gañe woon moo gañe woon mais du tête de liste bi lañ élire maire. Ah, dañ dem ba ci biir conseil municipal moo doon voté. waaw dañ dem ba ci biir. waaw am yu ci xew yoo xamante ne xam nga dafa am politiciens yoo xam ne ñoom dañuy aay ci yooyu. Mhm. maanaam boo toppee année 90 ba léegi parti bu ne jaar nañ fa donc dañuy am yu ñuy xam ak yu ñuy mën. Mhm. yoo xam ne peut-être ñun suñu genre gi duñ ko mën. 90 ba léegi mais ñun mais ñun dañoo bokk ay valeur mhm. am gis-gis bu ñu am ci suñu commune ñun ñu jàpp ne fi ñu war a teg suñu bët ci wàllu ambition ak échelle d'ambition war na weesu lii ñun wax naa la ne la euh, gis-gis bi du ay peintural ma école pavé naa joxe naa détergent loolu dañ ko war a dépasser loolu laay woowee le misérabilisme municipal. mais sa budget bi ndax mën naa yokku budget bi ndax mën naa yokku mais bu baax bu baax. foo jaar ba mu yokku. parce que activités yi surveillance su chantier yi li ñu war a taxer. d' abord waa impôt et domaine boo joree euh, li nga xam ne moom mooy mairie da ngay dem toog waxtaan ak ñoom. Mhm. dama la jox te exemple Alioune Ndoye 3 milliards la fekk budget yóbbu ko 12 milliards. Mhm. parce que potentiel recette bi ak potentiel activité yi ni leen war a taxé taxé wuñ leen noonu. Mhm. surveillance bi war a am ameewul noonu parce que il faut nga am ay régisseurs ay agents voyés yoo xam ne mot nañ ko nga ànd ak ñoom liggéey liggéey bi ci war bu ko defee yow nga am. ci wàllu sport monsieur le ministre. Abdou Karim. sport à part piscine olympique. ak euh, fond terrain Jaraaf. gisuma ne am ngeen fekk fenn fu ngeen footballé. waaw loolu moom waroon nga ko laaj maire bi parce que li ma lay wax rek tey jaraaf de Dakar terrain amitié 2 bien que ñoom ñoo am bail. mais équipement public la. nee nañ ñoom pour clôturer terrain bi. def li nga xam ne mooy gazon synthétique gason synthétique ak éclairage. def éclairage def tamit ay vestiaires. waaw ils ont dépensé cent cinquante millions. man dina am un milliard huit di seetaan keneen ñëw jël sama équipement public def ci projet man ma toog ñàkk. tey xale yi bu ñu bëggee football dañuy dem ay Dakar Sacré-Cœur di fay ak yu demee noonu maanaam maanaam maanaam man man man ci jaraaf laa bokk ah, mais man jaraaf man la man jaraaf bu doon man la mhm. dama leen di woo ñu toog ma ne leen yéen a yor baay bi dëgg la mais ñëw leen ñu def partenariat mhm. jaraaf fu mu génnee cinquante millions xanaa mairie war na fu mën a génnee cent wala jaraaf bu génnee cent commune bi def cinquante ñu mu dox mu doon projet boo xam ne dañ ko bokk. Mhm. mu bañ a doon ay mur mur de Berlin boo xam ne nit ñi gisanteetuñu mu doon loo xam ne bu waa Jaraaf joué matin xale yi am seen programme donte sax waa Jaraaf léegi prévoir nañ ko. Mhm. tijji tijji tuuti waaw deuxième chose. waaw mooy ñun amuñu espace yu ñu def terrain mais am na ay structure yoo xam ne am nañ terrain dama lay jox tey benn exemple piscine olympique. Mhm. biir point la nekk moo koy gérer. moo ko moom waaw ville de Dakar mais imagination bu amoon. ah xaaral ma wala. couleur politique boo kon. waaw boo kon. waa déglul rek. waaw ville de Dakar. waaw ki koy diriger. waa te du waa kër Khalifa Sall la woon. waaw ñun fii kii diriger Khalifa nitu Khalifa Sall la woon. waaw ok dama ne bu fekkoon ñi ngi liggéey ni ñu waree. waaw nga foog ne warul woon dem seeti ville de Dakar ne leen dama bëgg ñu defar gazon synthétique ndax samay gone di mën football. Mhm. mu ne déedéet mu ne man am naa as tuut bàyyi ma defar ko. yow nga loué tel heure man ma jox samay gone parce que question boobu boo duggee point E boo duggee zone B xale yi dañ la koy wax. mais ma jox la beneen exemple en sept ans. waa zone B bâtiment ñi nga am benn terrain boo xamante ne bés mooy en face ministère des las des sports. waaw ñaari terrain. waaw yoo xamante ne ba ba tey jii nii dégg naa gazon bi ñu leen andil sax daanaka. gazon wu kër la. maanaam gazon synthétique am gazon synthétique dafa am ay normes. donc yow boo yoree terrain yoo xam ne pour defar ko matul sax 5 millions. mu jël ci yow 7 ans. maanaam fii ay chantier inachevé rek a fi am. te yow boo ñëwee yëpp dina dina dina dina fexe fexe boor. man dama la dama la wax dara ñun dañuy repenser yóbbu échelle d'ambition bi feneen dama la wax. ne la. Wembley terrain xàll yoon école judis mhm. danañ ko defar. Mhm. man maa la ko wax télé baa ngi may xool bu ñu fi yàlla bàyyee. Mhm. dama la ne école normale supérieure naa leen seeti ne leen seen terrain nañu discuter ñu defal leen ko synthétique wala gazon naturel. xale yi point e di am fu ñu footballé. Mhm. waa piscine olympique bu ñu bëggee dinaa jël ci budget bi defaral leen seen terrain defaral leen seen terrain basket tamit. Mhm. ne leen waa point E bu ñu buggee jouer ngeen jox leen seen waxtu yéen ngeen jël seen i waxtu. Mhm. waa fan ok ñoom terrain ensuite lañ daan jouer te kekk la ba léegi. man du ma yor un milliard huit cent di leen seetaan. xanaa at mu jot. ni ma la ni ma la ko mën a waxee. waaw ni ma la ko mën waxee. mooy at mu at mu ne ak terrain bi ñuy defar. Euh, ak vision bi non non loolooy loolooy bilan euh, suñu affiche bi nu mu tuddee sax mairie bu bees ak maire bu bees loolu la. Ah, am na benn point bu ma soxal. maa na benn point bu ma soxal. parce que mooy deuxième. cinq minutes moo des deuxième candidat bu ñu dalal bu ma gis mu xalaat les personnes vivant en en en. en situation avec waaw. waaw ñooñu gis naa ne bàyyi nga leen xel parce que ils sont. dañu bokk ci askan bi bokk société bi mais raar na nit di yor nguur wala di yor ndomba tànk di leen xalaat gis naa ko ci sa programme lan nga ci nam man on va au-delà de ça mm. c'est-à-dire la notion d'handicap elle est très réductrice dañuy dem si les personnes en situation de vulnérabilité de vulnérabilité moo ki nga xamante ne njàngam eggul te amul liggéey il en situation de vulnérabilité mm. ki nga xamante ne tamit il est à mobilité réduite kooku ñooñu tamit wala am ay handicap dañ leen war a bàyyi xel ci bâtiment yi ñuy loolu lañ gën a xam mais tamit ñu jàppale leen Sénégal dafa am lu ñuy wax ah, carte d'égalité des chances hmm. boo xam ne ku ci ne ko war a am mais ma ma ma ma tegal la ci beneen point hmm. boo xam ne dafa mel ni dañ ko fàtte mooy bërëbu diine yi commune bi diine da leen ñoon lieu de culte lieu de culte waaw gis naa nga ñun ñun suñu maire ci un milliard huit cent quinze million par an lay jël ne moom lay jox diine te joxu ko sax diine quinze millions lay jël def ko subvention aux 15 millions yooyu jàkk ju ne mu jox la 1 million nawetaan bu ne mu jox la 1 million maanaam. Mhm. équipe nawetaan yi ak bërëbu diine yi lañ bëbësal jox leen. 15 millions sur un milliard 8. Ah. man li ma jàpp mooy at mu jot war nañ mën jël lu toll ci cinquante millions. ñu waxtaan ak bërëbu diine yi. ñoom ñu mhm. def seen commité communal. des mhm. lieux de culte. ñu ne atum sàngam point E dafa am chantier ñu prioriser ko ñeneen ñi ñu defal leen entretien wala li nga am li ñu soxla. atum 2023 zone B dafa bëgg a defaraat juma am. Mhm. ñu génnee mu mel ni tontine. Mhm. at mi ci topp ñu ne suñu mbokk chrétiens yi dañu am nangam ñu génnee jox leen. Mhm. ne leen defar leen nangam nangam. mu doon daal gestion bu concertée. bu uteeg li fi am tey xam nga lan moo fi am tey de manière de manière graduelle maanaam xam nga liggéey. dafa am cadre logique. da am plan boo xam ne chaque année waxuma ne lépp ci benn année lañ koy def. da nga naan première année la sécurité et du cadre de vie. la santé. troisième année nga ne année de l'éducation bu ko defee bu ci ne effort bi ngay def ci budget bi ci nga ciy gën a bës sinon ku sumb lépp doo mën lépp léegi vote bi dernier point waaw dernier point waaw jigéen ñi tamit war nañ ko wax waaw moom la may wër jigéen bi may wër ak ndaw ñi may wër waaw bi bi may wër waaw deux minutes bi may wër ngi koy lekk. juróom juróom ñaari téeméeri kër ak fanweer ak juróom mooy 735. maison yi nga xam ne dugg naa fa du premier juin ba démb. konte wu ma avant peut-être ëpp na 1000. ëpp na 1000 mais man li ma jàpp liñ ma wax tamit mooy. kër goo dugg. Mhm. am na ku yor atelier ci laf gi. kër goo dugg am na xale bu yor mobilette ne day. cak cak day cak cak wala salon de coiffure am na salon de coiffure. waaw ne leen naka ngeen di liggéey ah man de sama mag bi nekk Italie moo ma mayoon sànga man de sama pap moo jël ci retraite am jox ma nangam. sama mm. papa de moo jaay toolam ma ne. ñun kat war nañ bàyyi xel. Mm-hmm. jigéen ñi ak ndaw yi surtout ndaw ñi xale yu góor yi xam nga lu tax. Mm-hmm. ils sont débrouillards bëgg nañ liggéey mais mutuel yi ni ñuy lebalee. jigéen yi leen ko duñ ko lebalee góor waaw ñun ñu ne un milliard huit kat buñ ci génnee cent millions. dugal ko ci mutuelle. Abdou Karim bëgg nga cent millions de. wax te ay cinquante <laughs> millions ay cent millions ngay wax. un mille pour cent. léegi un milliard. Eh, ñëw sëñ bi. waaw sëñ bi. nga baal ma. waaw man naa ni xëri nga de. 2015. waaw ba tey jii nii. waaw fi ma jaar yëpp. waaw defe naa ne budget bi mosul yées cinquante milliards. donc bu ma nee cent millions xam naa lan mooy cent millions. waaw dama la ne ki ko ki ko xamul kay. waaw moom la yéem ba peut-être moom bu yore budget bi day lox. day lox dama ne ku am un milliard huit. waaw ku am un milliard huit waaw war ngaa génnee cent millions def ko ci sécurité waaw war ngaa mën at mu jot ci wér gu yaramu nit ñi nga def ci cent cinquante millions mhm. li tax ma lay wax li c'est parce que nit ñi dañ tàmm andi programme mhm. te duñu la wax naka lañu koy financer ak fan lay jóge yow boo mais dama la def li wax yëpp dama la ne dama la ne yaa wax mon engagement dama la ne Abdou Karim yaa ko wax mu ngi nii man dama bind dama bind dama bind xaatim waaw sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne bokk na ci ñi sanc quartier bi mhm. fii ngeen toog mooy Sicap Serigne Cheikh macha allah dafa ne wax loo def wax loo wax def ko yàlla rek ko mën mhm. waaye loo wax doggu ci ba mu am loolu mooy wàllu asgor mhm. te loolu nañ ko def waxtaan léegi ñu jeexal ak ak ak ak ak le vote bi nga xam ne moo war a am le dimanche 23 ñaari vote la ñaari vote la de seen candidat Abdoulaye Diouf Sarr bëri nañu ko dëkk Barthélémy dëkk na ko maire sortant nee na du jóg fi mu toog Pape Diop nee na faaw mu foqati mairie parce que ñii ñi ko wuutu ñëpp ay cuuna la ñu liggéeyul Doudou Wade fàqee làng ga ca des kan siis la ñu siis la ko am na ci kenn ku nga xam ne moom balaa ngay dem le dossier Mame Mbaye Niang. Mame li mu yegg seen candidat bi tam ngeen bokk parti loolu tam loolu moom. yow loo si gis si affaire yi directeur de cabinet président de la république. waa teg ko fi nga ko yekk lu mel. loolu dama ko faayoon moom vraiment. bëgg ngaa dégg dëgg. waaw. Abdoulaye Diouf Sarr. waaw ku gis jaar-jaaram ku gis li mu liggéey gis yeneen candidats xam na du seen moroom am na am na projet. Mhm. am na jaar-jaar kenn déggu ko ci lu ñaaw waxul saagawul newul ci mbedd mi di xuloog policiers yi ak di ànd ak ay nervi yi. Ah liggéey lañ ko xamee te Dakar waruñu def erreur bi ñu defoon. mooy ban depuis 2009. fal nañu ay nit at mu jot ñu natal leen cinquante milliards ci ay budget waaw boo ko dajalee deux mille 2009 ba 2021 bii. Mhm. mot na à peu près cinq cent quarante wala six cent milliards. Mhm. est-ce que Malal Thiandoum sentir ngeen ne Dakar commune euh, ville de Dakar cinq cent quarante milliards nattal leen nañu leen ko ci fukki at yu mujj yi. léegi léegi li may bañ. li may bañ li may bañ. waaw mooy ñu ñu ñu defati erreur jël ñoo xamante ne ay combat politique national lañ am. Mhm. di leen dénk suñu ville. au lieu ñu jël Dakar def ko la capital de l' Afrique de l'Ouest mhm. fexe mu set fexe mu am sécurité. fexe nit ñi di feju ñu koy jël di ko defee xeexukaayu politique. léegi sa ñàkk discipline de parti bi ci biir APR. Dakar nag moo leen jaaxal. dama la ne APR dama la ne. Dakar loolu rek ñu tàggoo Benno Bokk Yaakaar. waaw moom moo leen jaaxal. te ne leen tic amul indiscipline xam nga ñan ñoo am indiscipline. Ah. waaye yeewi askan wi ñi nga xam ne démb ñun dañuy porte à fii ci quartier bi. waaw ñoom ñu dugg ci ñetti kër ñu dàq leen ñu déggul leen naqari di xeex seen biir romb ñu romb ñu ñëw di provoqué di xeex ak xale yi di leen sànni xeer. seen mer man lañ leen si. xaw ma caméra bi fu mu féetee. Hmm. dama bëgg wax ak Pala Samb. caméra baa nga ne nga jàkkaarloo. ba bi nga jàkkaarloo. bi nga jàkkaarloo bii nga jàkkaarloo waa kay. la. dama bëgg a wax ak Pala Samb. ak ñi mu àndal. waaw ñun duñu tooñ waaye lenn daal laa bëgg mu xam mooy élection yi bu ñu juumee ba laal ci kenn ci xale yi moom dina ko rëccu rëccu boo xam ne ci lay jaar defe naa politique dootu ko tuddati. léegi looy tàggoo. li may li may tàggoo ñu déglu monsieur le maire. li may tàggoo dama bëgg. dama déglu leen seen candidat mu tàggoo damaa bëgg ñu dégloo voilà li may tàggoo waaw mooy gërëm sant waa commune bi yëpp mhm. ndaxte ata ngi nii may wër may wër di dugg wër di dugg quartier bu ne waaw di waxtaan ak nit ñi di leen fekk seen kër mhm. di toog di déglu di xam ne nit ñi di dundee di xam seen jafe-jafe di leen sant bu baax mhm. ñu wax ma seeni mbébét ma jàpp xool li ci mën a ne ak li ci suñuy doole ak li nga xam ne moom la ñu compétence su collectivité territoriale may ñu dajale ko def ko ci livre muy suñu engagement am nañ yéene liggéeyal leen te xam naa ne ñoom it am nañ yéene ñun ñu ñëw liggéeyal leen donc li ma leen di wax rek mooy yàlla may ñu jàmm ba dimanche ku ci ne na nga ko daan defee ci jàmm ak civilisation biñ ñu xamee dem voté ji ndaxte tey li xew mooy ku tiit xam ne perte nga di jéem a provoqué nit ñi ngir xajamal mbir yi. Mhm. mais ñun commune bi ñi fi ne du ñu ay daw du ñu ay ragal du ñu ay buqat. Mhm. bu élection yi jotee nit ñi dinañ jóg dem voté ji bu fekkee nag plan daf fi am pour tere nit ñi di voté dinañ ko digaaleeg ñun. jërëjëf jërëjëf Malick. nga ah, tàggoo. voilà on a de la question Malick. voilà ça a été ça a été un plaisir ah. ñu waxtaan ak euh, monsieur euh, monsieur le ministre. candidat Benno Bokk Yaakaar ci Fann point e amitié. Euh, futur maire yaa ko sañ a wax man sañu ma koo wax. <laughs> waaw en tout cas euh, sans détour. sans porter de gants. Mhm. waxtaan nañu ak moom euh, mu indi ay réponses indi tamit ay ay propositions. Mhm. ci li nga xam ne moom la dëgmal. Mhm. li ñuy ñaan rek mooy élection yi. nañ ko def ci jàmm. élection yi. nañ ko def ci jàmm. Mhm. lu kenn mënut a séddoo. waaw dañu koy bokk te def ko ci jàmm. Fann point E amitié benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. politique jarul wax ju ñaaw jarul fitna nañ ko def ci jàmm ku falu falu ñu gunge ko mu liggéey loolu laa ciy jërëjëf Hadj jërëjëf monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. ci sa ci sa disponibilité. ak ci sa franchise ci tontu suñu ay question di gërëm ñi nga xam ne militants yi waaye itam di sakku comme ni ko Malick waxee ci sénégalais yi ñu am Pastef am fulla ak fayda dem woteel maire bi leen doy maire bi leen neex